man mënumaa concevoir première partie bi may njëkk a ñëw mënumaa comprendre nga jàpp nit di ko waxal lu baax tey tagg ko waxal ko lu baax defal ko lu baax wax lu ne lu baax suba ngeen am faay bu ndaw ëllëg nga dem toog sa coin mu toog coin ba keroog ñu ko koy lijjanti waaye doo ko def da ngay dem ci réseaux sociaux yi di yàq deram yàq ko ba mu yàqatoo wax lu ñaaw lu ne ba àdduna bi xeeb la gars yi loolu da ngeen di foon ne yow dañ la ciy naw dañ la ciy xeeb mais nit ñi ñëw lay jéppi ba dootuñu la waxati lenn duñ la wax A duñ la wax B te foo dem ñu daw la kilifa boo taxaw mu daw la nit ku baax koo jege mu daw la loolu mooy première partie deuxième partie bi gars yi munoo di wax nit ki lu ñaaw jàpp ko di ko wax lu ñaaw di ko xas di ko wax lu ñaaw yaa ngi dégg di teg ci deram bi lu ñaaw un nga bëgg a ñëw kole ko nekk ak moom ci jàmm doo rus doo xalaat ni yow yaa ngi ko doon yàq démb tey ci mënumaa si gi xool ko da koy ñëw mel ni xam nga ko téeméeri at ak juróom-ñaar fukk gars yi loolu dañu lay xeeb bàyyiwaat leen seen xel xeebante maanaam weerante bi nekkat ci réseaux sociaux yi gars yi koo xamal lu ñaaw génnee ko ndax ay vues ndax bëgg lu baax bëgg lu neex nit ñi pour lan parce que sénégalais yi léegi ñoo bëgg lu bon gars yi xoolaat leen seen bopp ngeen defaraat seen toogaay defaraat seen taxawaay àdduna bi dafa jeex ba pare de lijjanti leen seen bopp di wax lu baax di wax lu lu di dund ci lu neex yàlla gars yi bon ngeen de.